dëgg loolu dëgg bu ñu wootante waatee tamit téléphone ca loolu doomu la ñuy wax de mais waxuñ leneen seexuñ dara lu dul ñu tëj ma kaso nga ñëw wala ñu tëj la kaso nga ñëw waaye li ñu boole mooy mais forcé wuñ leen dinañ nekk ay xarit par force mais waaye politique du yëfu nit waaye. d'accord heure bare bi jot na su ko defee ñu daal di wax lu jëm ci ñi nga xamante ni tabb nañ leen ak ñi nga xamante ni voilà wàcce nañ leen. waaye li voilà. ñu tabak ñu wàññi démissionné kon la. Babacar Diagne. Babacar Diagne ma. général. kooku mandaam ba mu jeexee kañ la. te du Macky moo ko fa bàyyi woon mandaam moo jeex. démissionné lan. mooy ñu waay. <laughs> tere nit ñi ne leen doo leen fi wax. moom sax kenn waru ko woon waxal ne ko Babacar Diagne mujj na fa jógee de. moo doon tere nit ñi di di di wax léegi mu jógee fa di def communiqué pour nit ñi waxal. waruñu ko wax. yow li may wax loo miiram miir yaa ngi may tooñ. moom moom lay yaa ngi may tooñ. Ah, yaa de. maa lay tooñ waaw bien ko amati. ma lay koy fàttali. li nga wax amut. waaw loolu la jaara wax moom tamit mu ngi lay tooñ. bàyyi naa leen ak yàlla. ah d'accord ñu dem. <laughs> nee na yéen a ngi lay wax yaa ngi may tooñ. yéen te du nii ngeen di def ba ma raara leen ci deux jours Germaine Michel maa ngi lay nuyu. dégg au titre des mesures individuelles le président de la République a pris les décisions suivantes au titre de la présidence de la République monsieur Mamadou Oumar Ndiaye journaliste est nommé président du conseil national de régulation de l'audiovisuel poste vacant nee nañ bang ba kenn newu fa woon mais Babacar Diagne fa ne woon jugee fa ay ah, yow tudd nga ko tooñ nga sa bopp. maa tey communiqué bii lii rek moo ma ca naqari démb ci guddi dañoo waroon wax en remplacement de monsieur Babacar Diagne. mais il voyait ça venir. mais comme que defuñ ko man du xaaral ma liiraat ko monsieur Mamadou Omar Ndiaye journaliste est nommé président du conseil national de régulation de l'audiovisuel. Mm Diomaye nag dafa bind poste vacant man di maa dindi poste vacant bi ndànk def ne en remplacement de monsieur Babacar Diagne. Bale kenn appelé wu ko à d'autres fonctions monsieur Mamadou Lamine Dianté est nommé président du conseil du dialogue social en remplacement de madame Innocence Tap Ndiaye monsieur Moustapha Djité magistrat est nommé directeur général de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP en remplacement de M. Saernian. Au titre de la primature, M. Atab Sané est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence nationale de relance des activités économiques et sociales en Casamance, ANRAC. Au titre du ministère des infrastructures, des transports terrestres et aériens, M. Souleymane Gueye expert en transport aérien est nommé directeur des transports aériens en remplacement de monsieur Oumar Khassimou Dia monsieur Badara Diop ingénieur d'exploitation de l'aviation civile est nommé directeur des infrastructures aéroportuaires en remplacement euh, voilà de monsieur Cheikh Diouf monsieur Mandiaye Faye mm-hmm. ingénieur des transports et nommé directeurs de la circulation routière et de la mobilité en remplacement de monsieur Mouhamadou Moustapha Niang monsieur Abdoul Siley Fataba ingénieur des transports précédemment chef de la division du centre de contrôle technique au ministère des infrastructures et des transports terrestres et aériens est nommé directeur des transports routiers en remplacement de Moussa Yaya Samba Niang. Mm-hmm. Moussa benn Ben Alfousseni Sonko. si gars yi ñoom xanaa tey dafa am luñ diwoo. Mm-hmm. bagages yaay tëb di. di dinaa ñëw de voilà. conseil Yankhoba Ben Alfousseyni Sonko. Mhm. foofu laa nekkoon. Mhm. est nommé président du conseil d'orientation du fonds de développement des transports terrestres au titre du ministère de l'industrie et du commerce monsieur Babacar Sembène commissaire aux enquêtes économiques principales est nommé directeur général de l'agence. D'accord. mu ci ku ma nekkoon. monsieur Babacar xaw ma. directeur général de l' agence de régulation des marchés au ministère. Mm-hmm. de l' et du commerce en remplacement de monsieur Ansoumana Sané madame Françoise Faye. commissaire aux enquêtes économiques principales est nommé directeur général de l'agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique au ministère de l'industrie et du commerce en remplacement de monsieur Makhtar Dia monsieur Ahmed Tidiane Dia commissaire aux enquêtes économiques principales est nommé directeur du commerce extérieur au ministère du commerce en remplacement de monsieur Ansou Badji monsieur Henri Fall Carvalho ingénieur en industries agricoles et alimentaires est nommé <laughs> est nommé directeur des petites et moyennes entreprises au ministère de l'industrie et du commerce en remplacement de Seydi de monsieur Seydina Aboubacar Sadikh Ndiaye monsieur Issa Wade commissaire aux enquêtes économiques est nommé directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt au ministère de l'Industrie et du Commerce en remplacement de monsieur Driss Junior Diallo Driss Junior Diallo Ali Fourouba est nommé PCA du CICES mooy foire ba au titre du ministère du travail de l'emploi et des relations avec les institutions monsieur Babacar Sy inspecteur du travail et de la sécurité sociale est nommé directeur de l'emploi et au ministère du travail en remplacement de monsieur Modou Fall appelé à d'autres fonctions au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme du service public, M. Salif Kouli, professeur de l'enseignement secondaire, est nommé directeur du Centre national de formation et d'action à remplacement de M. Khalidou Yakoma, appelé à d'autres fonctions. M. Ibrahim Adien, inspecteur du travail et de la sécurité sociale, précédemment directeur des ressources humaines au ministère de l'économie, du plan et de la coopération est nommé <laughs> est nommé directeur général de la fonction publique en remplacement de monsieur Amadou Makhtar Cissé appelé à d'autres fonctions au titre du ministère du tourisme et de l'artisanat monsieur Gora Faye titulaire d'un diplôme d'études approfondies en géographie est nommé secrétaire général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, APDA, en remplacement de Monsieur Youssouf Abba, appelé à d'autres fonctions. Ansoumana Sané, promoteur touristique, est nommé président du conseil de surveillance de l'Agence sénégalaise de promotion touristique. Au titre du ministère de la communication. Ok, boobu mooy suñu boss. Hmm. waaw. de la communication voilà des télécommunications et du numérique monsieur Momar Diong journaliste titulaire d'une maîtrise en lettres modernes est nommé directeur de l'agence de presse sénégalaise en remplacement de monsieur Thierno Amadou Sy Cheikhouna Bey chercheur maitre de conférence en sciences de l'information et de la communication, est nommé président du conseil d'administration de la RTS. Au titre du ministère de la Santé, M. Seguegui, titulaire d'un doctorat en sociologie, est nommé directeur général de l'Agence sénégalaise de la couverture maladie universelle en remplacement de M. Cheikh Tako Diop. Au titre du ministère de la Justice, M. Mbosse Sow, greffier est nommé PCA de l'Office national de recouvrement des avoirs criminels, ONRAC, au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, M. Abdou Salam Kanté, conducteur de travaux, retraité des armées, est nommé président du conseil de surveillance de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité ASP en remplacement de Hamidou Mbaw monsieur Cheikh Niang magistrat est nommé secrétaire général du ministère de l'intérieur et de la sécurité publique en remplacement de monsieur Alioune Aïdara Niang admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite au titre du ministère de l'environnement et de la transition écologique monsieur Sadibou Djiba président professeur d'enseignement secondaire en sciences naturelles est nommé président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la reforestation et de la Grande Muraille verte au titre du ministère de la Pêche et des infrastructures maritimes et portuaires. Madame Sokhna Benga, administrateur des affaires maritimes, est nommée présidente du conseil de surveillance de l'Agence nationale des affaires maritimes ANAM au ministère des pêches des infrastructures maritime et portuaires en remplacement de monsieur Ibrahima Kamara waaw foofu moom njuumte la te état bi euh, dellusiwaat na ci mooy diggante kii Bekaay Diop voilà ak euh, voilà voilà voilà monsieur Bekaay Diop titulaire de MBA en management est nommé directeur général de l'agence nationale des affaires maritimes ANAM au ministère des pêches des infrastructures maritimes et portuaires en remplacement de monsieur Massamba Achille Edouard Guèye waaw foofu lañ jumte bi nekk digganteem ak madame Mbëggee Mbëggee Gaye ñi nga xam ne moom tam nee nañ même poste la voilà dinañ ci indi jubanti léegi monsieur Aliou Ba économiste des ressources naturelles expert en pêche et aquaculture est nommé président du conseil de surveillance de l'agence nationale de l'aquaculture au ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, en remplacement de M. Kille Saho, au titre du ministère des Finances et du Budget. M. Idriss Samb, inspecteur principal des impôts, est nommé administrateur du Fonds de garantie automobile. Le ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Amadou Djek, Amadou Moustapha Djek Sahin, d'accord très rapidement honorable mu mel ni euh, nomination yi bi ci gën a bokk na ci euh, bu euh, monsieur Dianté ak bu Momar Diong journaliste